xaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi ko yàlla dolli teraanga ak jàmm haakiyan ma ngay wax di nettali mu ne anna rabbihi naka sama boroom hazza tedd na wa jalla te màgg na moom sunu boroom nee na man yàlla almalikul xuluubul mulooki maay buur ba nga xam ne ma téye xoli buur ya mboolem luy buurab àddina man yàlla ma téye sab xol kon xoli buur yépp muy buuri àddina ya bi yaddi mi ngi ci sama loxo man yàlla mi aji màgg ji nguur fa ay yu xaw min saa soo xamee ne aw nit muy am réew ataaxoo nii ña nga may topp jaxaltu dinaa def xuloobal mulooki ca xoli buur ya alayhim ñu wàcc ca ñoom rahmatan yërmande dinaa ca sol yërmande ñuy yëram waa réew ma ndax ñoo ma ragal di ma topp su ko defee buuri àddina yeleen yilif dinaa ca sol yërmande ñuy yëram waa réew ma wa ayu xaw min saa soo xamee ne aw nit nag asaw nii ñang may mooy man yalla jaxaltu xulóobal mulooki alayhim niqamatan saa soo xamee ne am réew nag ña nga may moy dinaa def ca xoli buuri réew moomee mbugal ñu di ko wàcce ca waa réew ma kon lépp mana man yàlla fa isaara aytum minhum seen jullit su ngeen gisee ca seen buuri àddina maa takrahoona loo xam ne neexu leen bu ngeen gisee ca buuri àddina yi ca seenam réew loo xam ni ña nga koy def te neexu leen falaa tamiloo bu leen jeng mukk alayhim jëm ca ñoom bil maxsiyati ci di xeex ak ñoom di mooy seeni ndigal ak seeni tere aa buurab àddina kenn du xeex moom noonu yow julit bu dee nga gis ca buur i àddina lu la naqari yéen julit yépp tase leen wa tuuboo ilallahi ngeen di def ay astaxfirullah yu limu jar na sax ngeen tase ku ne def ñaari junne astaxfirullah rek ngeen dem di ngeen gis loola faju ci lu gaaw xel moomu nag gisuguma ci benn réew ñu koy def waaye loolu moo gën a gaaw ci jubbanti buurab réew buurab àddina yeneen te nee na bu ngeen gisee ca seen président du leen naqari bu leen xeex ak ñoom bu leen xulook ñoom wa tuuboo ilallaahi rek yéen ñëpp dajaleen rek ngeen di wax ay astaxfirullah yu baree baree baree bare jar na kenn ku nekk def junne astaxfirullah waa réew mépp su loolu amee rek ah tafa xuloobuhum yàlla dina wàcce ca seeni xol yërmande ak ñeewante ilaykum ñu jëme ko ci yéen bala leen naqari woon ci buri àddina yépp saafarawu waxaala sallallahu alayhi wa sallama yonent bi alayhi salaatu wax na ne kama takoonoona ni ngeen nekke yu wallaa aleykum noonu yi rek la yalla di joxe seen buuri àddina seen yërmande ci seen kaw bu ngeen nekkee di jaamukati yàlla taragal yàlla yàlla jox leen buuri àddina yu leen di yërëm te di leen dimbale su ngeen nekkee safaan ba tamit safaan ba mooy am yonent bi nee na wa yuqaalu ahmaalukum umaalukum seeni jëf daal yéen jullit ñooy doon seeni jaraaf bu jëf rafetee dëppoo ngërëmal yàlla yàlla jox la jaraaf maanaam burëb àddina boo xam ne dana wàcce yërmandeem ca sa kaw wa min saalika ci loolu nag an laa yuhiinahum yéen julit bu leen dimbale mukk nag buurab àddina boo xam ne allah zulmi daa jëm ci tooñ ci luy naqari yàlla mu di ca jàpp di ca wax buur buy encouragé ak ngóor jigéen buur buy encouragé ak mbon di encouragé naan sangara di encouragé ak wuyu di encouragé ak sàcc di encouragé ay caaxaan di encouragé lu mel ni misik ak pom ak caaxaan ya mu ne bu leen leen topp ca loola nag ndax képp koo xam ne yaa ngay boole lu baax ak lu bon di encouragé lu bon boole ca ndamit di yëngutu ci lu baax laa ilaa aulay wala ilaa aulay buñ demee fu baax fekk la fa ngay yëngutu ca lu baax buñ demee ca mbon ga fekk la ca ngay yëngutu ca mbon ga kooka nag ku ko bàyyi bayal cim réew dana mujj réew moomee wala ñooña ku leen bay bayel cim réew dana mujj réew moomee lu ñu ñaanati yàlla yàlla du ko nangu ndax dañoo encorager ak mbon te kilifa ya nga xam ne ñoo war a nit na sunu boroom ña ngay jàppale ñu bon ñooñee ca seen bon di leen gërëm ak di leen bàkk ak di leen kañ jox leen cër yoo xam ne joxuñu ko ña melut ni ñooña ci alal ñu bari fi nekk nii ña ngay jàpp ak a jàppale ña nga xam ne ay caaxaankat lañu la ko waral mooy alal ja ñu yor waaye seen dara du dara yàlla waaye buñ demee ca ña ñu yaakaare yàlla am fa cër boo xam ne ñu amut alal amuñu ko loolu nag bu yàggee cim réew bu baree cim réew wasaaroo fépp ca réew ma bu ab jafe-jafe amee bu ñu baax ña ñaanee yàlla du nangu yàlla mi ngi nangu ñaan goo xam ne ña koy def dañoo baax te encouragé wuñu lu bon te jàppalewuñu way bon ya waaye lu ñu baax baax boole ce nag jox cër way ya di leen màggal di leen teral fonk leen fonk gog fonk ñu ko ñemelut ni ñoom ndax alal ñooña nag dinañ dem ba yegg foo xam ne lu ñu baax baax bu jafe-jafe amee ca réew ma bu ñu ñaanee yàlla du ko nangu yàlla nu yàlla musal ca loola nañu fonk jàng ak liggéey ak jaamu yàlla ak jub képp koo xam ne xam nañ ko ci caaxaan xam ko ci ngóor jigéen xam ko ci encouragé ak ngóor jigéen di fexe ngóor jigéen am promotion ci àddina bu ñëwee ci këri diine yi buñ ko fa jox palace loolu mooy dëgg wasalaamualeykum